Euh, société bi di HLM ngir daal di ñaawlu rek ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund ak boobee société ba tax na nag lu toll ci ñett si ñoom daal dinañ leen ci teg euh, loxo dañ ci ànd ak ajaratu Aïcha nga xaar ba xaddi ñiy dëkkoon ci HLM Maris te ñu leen nangu nañu protocole d'accord bu nu xaatimoon tànn bi moo di yow bu fekkee da nga bëgg ñu jox la kër nga toog HLM di la fayal location ba HLM jox la kër ñi nga xam ne dañu bëgg a jaay seen kër ñu delloo leen seen xaalis seen HLM daf ñu toroxal daf ñu rusloo daf ñu teg gàcce. payorug indemnité yi nii lañ ko tëralee woon. au bu ñu daan fay dañu daan fay par ordre ABCD ba fu ñu jëm mais fay bi bi yoon dafa jaar njuuj njaaj. Euh, le 17 à 23 heures xaw ma à minuit ñu yónnee ñu benn papier comme quoi que euh, reporté nañ ko à d'autres loolu nag moo yëngal sunu ay xol. ñu ñëw di laaj seeni koppar citoyen yi de ay woto police ñoo leen teeru. bi ñu fi yegsee daal ñun def nañu sunu ay panneau de de de de wane ni sunu naqar mais police dàq ñu ñu daal di jël ñi ñuy jiite yóbbu nag dans ak violence nag parce que. tey borom kër yi ñu génne ci seeni kër taxaw nañu tem gunge seeni njiit ca polisu quatrième arrondissement taxawu leen ba ba ñu leen fay génne. ñu wax ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi doon ñaxtu niki tey ji ci suba muy élèves yi nga xamante ne noonu nekk ca lycée Camp Marchand Abdoulaye Sadji ak itam lycée moderne ñoom nag daal dinañu wàcc ci mbedd yi ngir sàkku rek grève bu bëri bi nga xam ne euh, seeni professeur daal dinañu ko nekkee ñu daal di ko dakkal ba tax na itam lu jëm ci wàllu salle de classe ak table bon tamit ñaxtu nañu ko Cheikh Ahmed Tidiane Seck woon nañ lu toll ci ay téeméeri téeméeri ndongo yu jubali ci boulevard Maurice Guèye bi ndongo yooyee bàyyeekoo ci ñetti lycée yi ci ville bu Tëngéej di wane seen ak yi ak la nga xam ne moo di grève yu métti yi nga xam ne moo ne seen professeurs yi di amal. ñi ñëw mais 9 fu mu jotee ñoom ñëpp ay génn téye seen saak génn dem seen yoon. des ñu ne grève totale wala débrayage. premier devoir lañ def. suñu fay jotooguñu ko ñu def deux defaguñ deuxième devoir. depuis mois d'octobre ñuy grève. bon keroog lundi lañ def. dañoo toog euh, de huit heures jusqu'à dix-sept heures présence passive lañ def dañoo assisté defuñu cours ñuy xoolante ñu ne prof dañoo sonn si loolu noonu gouvernement bi na génn wax ak professeurs yi ñun ñu jàng nous sommes des élèves de terminale ñoom lycéens amul tiit jëm ci seen ak ëllëg di sàkku nag ay conditions ya ñuy jàng yu mucc ay ndax dañoo manqué ay salle de classe ak ay table banc ndax da ngay ñëw des fois huit heures dem di seet ay table banc pour toog ay siège waa yi ñun léegi bu ñuy jàng sax pour ñu wan la ay problèmes ay schéma nii surtout les élèves de est duñu la wan ay matériels yoo soxla dañuy ñëw rek def schéma annoté pourquoi les laboratoires alors ñuy nëbb suñu ay matériels. moom dongo yooyu bëggoon na wutali makkaanu préfecture bi waaye nag policier daat leen koy gàntal terewul ñenn ci seeni camarades yi dañoo dem wutali eh, pegg tali yi dox boulevard Boris Gueye bi ngir askan yi dégg leen. ñoom nag tàmbale gu ñoo ñaxtu ci kaw tali bi waaye ca lañ jëm di camionneur ak transporteur yi nga xam ne ñoo bloqué foofee ca frontière bu Sénégal ak Mali nee nañu nag boobu ba léegi gis nañ ni lu jëm ci seen wàllu liggéey dafa daal di sooxee bu baax rax ci dool yi lañ ca ñàkk dafa daal di bëri ba tax na kii di nag pré secrétaire général bu syndicat routier wu Sénégal yi di El Hadj Mansour Ndir daal dina ci àddu jëmale ak Abdoul Aziz Sow Dabakh lim bu takku ci ay camion ni ki noonu yeneen i oto ñu bloqué leen ci frontière ba ca Mali muy lu metti lool transporteur yi di ko nakkarlu ñu dugg ba pare mun mënuñoo gi mënuñoo décharger mënuñoo génn ñoo ngi taxaw benn place am yoo xëy dañoo chargé dañoo déparé foofu pour yibbi si dugal si suñu oto ñaata oto sénégalais ñoo nekk biir Mali du jeex kenn xamul lu mu toll Maliens yi moom gis ngeen li fi yéen a ko xoolal seen bopp transporteurs yi ñu ni ne antanatuñu lu ni mel daan bu si EEDEAO teg ci kaw Mali suuxal na bu baax seenub liggéey teg ci ndërmeloo koom gi. opérateur bi nga xam ne dañoo jëlee ay euh, marchandise bitim réew ah, def ko ci bato yi mu ñëw bato bi mënut a débarquer bu fi taxawee yan euh, yan taxawaay bi fay nañ seen transport ba pare bato boobu day tourné dellu lan moo leen delloo si seen marchandise est-ce que du marchandise périssable yëpp dañ ko sóoraale oto yi chargé ba pare war a dem chargé marchandise périssable mu war a yàqu ci diggante bi nuñ koy def. ay milliards la état lim mu perte mooy euh, liy jóge ci poor bi jëm si ci ñoom loolu mooy perte ba ñu ne nag lii bu namee wéyee nii ñoom dinañu leen dégg. bu léegi continuer dañuy dina am riposte. soixante-douze heures yoo xam te ne oto du ko daw Sénégal. li mënul continuer. ñi le kon ñu ngi dànkaaf autorité yi ngir ñu indi si saafara. alaaji mu mel ni kon jamono ji foo ci laale rek mi ngi metti ginnaaw élève yeek ñi nga xam ne ñoom ñoo di camionneurs yi ñi nga xam te ni tamit ñoom ñoo di waa Anne ña ngay ña dafay wane ne rek réew mi amul amee xam nga waa waa waa HLM Maristes yi doon manifester. <laughs> yow génne nañu la fi nga dëkk fekk ñu jaay la ko. <laughs> ki la koy jaay am fu mu war dugal am lu mu warul warlu wante ak yow di la ko jox. xam nga kon nangu na moom waaye fam la pour mu jox la ko dem ba yàgg joxewaatu ko wala day jox ñi du jox ñi nga ñëw taxaw ci buntu siège bi ngay defee manifestation. ñu ñëw jàpp ñenn si ñoom yóbbu leen cest à jàpp laa xamul lan mooy problème mu. Sénégal ak jàpp nit ki mënoo fexe ba yow yow moment bi ngay jàpp nit ki yow lijjanti woo ba xam joxe na dépense këram lijjanti woo ba xam tey njabootam ci biti la ñuy fanaan lijjanti woo ba xam bàyyi na këram benn doom bu tawat boo xam ne ay jaaxle moo tax mu ñëw manifester te ak xam nañ ko ameel ñu ni kenn du manifester buntu HLM buntu SN HLM te mu ameel ñu ay droit loolu loolu loolu loolu ñu fas yéene ko bàyyi noonu ba kañ Sénégal nekk benn cin luy baax loo xam ne waxu ba dugal sa loxo foog mu gën a tàng. Mm-hmm. Euh, affaire yi yow mos ngaa gis benn réew tey je donne un exemple benn réew bu normal bu say doom bloqué ci sa frontière pendant de mois ñaata Sénégalais ñoo bloqué woon frontière au Sénégal euh, Maroc ak Mauritanie. Mm-hmm. frontière Sénégal ak Mauritanie bii diggante Mali ak Sénégal mais amuñu état bu mën a taxaw woote téléphone am na ñoo xam benn coup de fil rek situation réglé wu mais c'est-à-dire considéré wuñu Sénégal yi ci seen bopp. Mm-hmm. faale wuñu leen mooy li tax xoolal. chauffeur camionneur France tey dëkk ba yëpp duñu sëngeem parce que dafa am quatre lycéens yu nekkoon cinq lycéens yu nekkoon ci benn oto mu daanu ci benn rivière quatre ya dee mu kenn sauvé. dëkk ba yëpp sëngéem ak seen benn comédien bu dee démb ci seen glace yi dëkk ba tey seen chaîne yi ñëpp daanaka ñooñu lañuy la ñuy rendre hommage cinq personnes cinq personnes tey Sénégal bi nga commencé ba léegi ay nit yu ñuy torturer ci seen ay droit ci seen alal ay nit yu ñuy fëgg rëq seen digg ay nit yu ñuy toroxal ay nit yu ñuy téye seen alal ay nit yu ñuy capturer yóbbu police sans ñu bàyyi xel ba situation la ñuy dund ñun état la ñu am ay dirigeants yu am yërmaane yu bokk ci ñun la ñu am wala dañuy jékki-jékki yàlla wàcceel ñi ñuy jiite ñoo xam ne comprendre ñun situation bi ñuy dund voilà la question que je pose ma dëgg yàlla dama jaaxle Mhm. ay lu ñu mënti doon ay nit la ñuy doon ñiy wàcc ay nit la doon kon faw nag ñi fi nekk itam jéem a nit rek régler régler situation yi Abdoulaye Mbow ndaxte kaas yi bëri na waaw xam nga boo jëlee euh, li nga xam ne moo di SNHLM dafa nekk euh, structure buy tabax ay kër te am na près de soixante ans d'expérience mhm. euh, boo gisee immeuble yi nag si jet d'eau SICAP moo ko tabaxoon mhm. te immeuble yooyu itam mat nañu daanaka soixante ans donc SNHLM par rapport ak expérience bu mu am par rapport ak expertise war a xam durée de vie bi kër yooyu ay doomu Sénégal la ñoo jënd ko fay si ay millions yu dul jeex ñoo dëkk si même pas ñetti at nga gis ay toit yuy daanu ay plafond yuy damati ak yu demee noonu defe naa ne nag. dañ leen war a waaw dañ leen war a delloo li nga xam ne moom la ñu maanaam la si defoon wa ilaa ñoom ñu raser ba mu jeex ñu tabaxaat ay immeuble yoo xam ne dañuy répondre au nombre par joxaat ku nekk fi mu nga war a dëkk parce que ay famille ñoo cotiser ay famille ñoo dem lépp xaalis dem dugal ko fii nga xam ne moo di immeuble maraîchers yi immeuble maraîchers yi xam nañ ko bu baax dem nañ fa bu baax xool nañ ko bu baax waaye def naa ni tabax googu moom jéggi na dayo mm-hmm. leneen li nag moo di chauffeur yi nga xam ne ñu ngi kaas yoon la ñu kaas mm-hmm. waaye nag nañu xam ne kët euh, tax ñuy kaas moo di état du Sénégal dafa lëkkaloo ak yeneen état yi nga xam ne ñoom la bokkal UEMOA ak CEDEAO ñu def li nga xam ne moo di embargo économique mm-hmm. kii di Mali tëj frontière aérienne tëj frontière terrestre may jàpp ni nag war nañu xoolaat bu baax suñu taxawaay parce que itam yi euh, euh, dafa nekk koo xam ne ñoo bokk même ñoo bokk même réalité donte la am na ay jafe-jafe def naa ne nag dañoo war a privilégier la voie de la diplomatie ba nga xam ne daañu trouver un consensus ak junte bi nga xam ne Assimi Goïta moo ko dirigé ba nga xam ne effectivement duñu euh, euh, duñu du ñu yegg si Mali goo xam ne Mali xiif lay doon Mali coono lay doon te defe naa ne conséquences yi ñun suñu wàllu bopp suba dañ koy subir yeneen dëkk yu nekk UEMOA ak CEDEAO itam dañ koy daal di subir donc il faut faire par rapport nga xam ne situation au Mali naataange bi nag professeurs yi regroupé wu au cours du euh, autour du SAEMS et ñoom nee nañ duñu reculer élèves yi ñoom si woon wàpp ñi génn di grève ma jàpp nag comme dañoo nekkoon si campagne da amaana comme scrutin bi dimanche la amaana dafa ne dès dès lundi ministre en charge de l'éducation nationale war na fexe teg ay jéego yi nga xam ne moom ak yeneen ministère yu mu ko sëkkal ba nga xam ne dañu trouver une solution par rapport ak li nga xam ne mooy situation bi nga xam ne système éducatif sénégalais mi ngi koy dund te defe naa ne gàllankoor yi si kanam daañu ko gis parce que tam niveau bi day fay gën di dellu ginnaaw te defe naa ni itam ka ciy gën a loru mooy gune gi jàng. ki ci gën a loru mooy gune gi jàng paasan gis yi.